mission secrète lañ ko tuddee. Mhm. waaw mu mel ne ci bi enquête bi gënee doxal daal euh, wàllu mission secrète la wax ni moom lay def te mission secrète moom comme nuñ ko waxee mission état la warul génn. Mhm. beneen bi aussi moom mooy euh, te na fa ñeenti tour bu dul Macky Sall la kenn ki euh, promoteur la homme d'affaires kenn ki yor na parking automobile kenn ki ancien ministre la. donc loolu moo xuusagum actuellement ci enquête bi euh, te wax dëgg bu ñu ko continuer nii ñu bari dinañ ci tombe ñu bari dinañ ci daano parce que jeexagul daal jeexagul mu ngi en en enquête ba tey. Mhm. cheikh bi léegi nag man ay question yu ma lay yu ma yu ma lay laajte parce que mbir su amee des fois gëstu dina ci baax ak laaj ci xalaatu xalaatu nit ñi. Mhm. parce que ñu bari dañ jàpp ni ginnaaw coowal Racky Clara Clara Racky yëf yi dafa am coïncidence maanaam la sortie de Racky ak la l'arrestation de a Gueye mhm. ban jàngat nga ciy def yow cheikh bi est-ce que dafa am coïncidence coïncidence la wala yëf yi dafa demoon instruction wala dañ ko convoqué woon bu yàgg parce que d'après bu ñu fuyee information yi mooy plainte bii nga xam ne moom lañ ko plainte ba ñu woo ko waa ji bindoon na plainte bi ci nguur gi bi mu fiy nekk mhm. mais euh, amuloon benn suite bi nguur gi wàccee na nguur gu bees ñëw ci la déposé waat plainte bu bees mhm. voilà question boobu mooy bu njëkk. xam nga biir kër di nga nekk ak jigéen ngeen ànd ci lu bari mu hmm. dem ba li nga nekkee soof ko mu am lu ko metti nga takk ñaareel ñaareel bi du xam li xew ba hmm. aw ñaareel la ba jéppi la ñaareel bi foog ne espace bi nga koy jox ak temps bi moom bajoom moo ko safee wala moo ko mokkee pooj fekk ci erreur la nekk mhm. loolu moo dal rakki mu dem ba génn di wane ne man lañu takk loolu dal Clara mu dem ba rus na njaboot gi ak sëy bi mënut a wax mu gàttañlu mhm. mais Clara kontaanul rakki mm. moo tax kii di fipp di wane ne man la kii di rasu di gën a mafiow buggul ku associé boppam ak lu ci bari mais nag ci mhm. biir loolu respecté na que kii jëkkëram respecté na que am neen doom. Mhm. mu noppi téye boppam moo tax miinanti wut ak benn manka kunka. Mhm. keneen xamul dara ci moom jàpp na ne dooro boo nekkee ak moom rek mu lay yóbbu hôtel ngeen di dem pare ka ñëw rek yaa rey gaynde gi. li la jafe woon yomb la loolooy àdduna kii nag paase na loolu. léegi su lii amee. mooy waral situation boobu ngay gis ci kër gi waaye lu taxoon doro woowuñ ko parce que nguuru Macky Sall la te dafa am doole bu mu fa amoon doole bi du dara lu mooy jegewante mhm. ñu mën a jël décision mhm. bi loolu amee ba ñu ñëw moo gën a oyof ci ñi ñu ci ñu yor seen dossier te moom moo gënoon a lëjle ndax dooro moo doon kenn nit kuy jëflante dix personnes yu utee mhm. parce que faale wutoon foofu la tolloo moo tax dossier dorom tey am na ci koo xam ne tey boo jëloon dossier ñeent rek a ci fekk bato engrais bi hmm. euh, autorisation indi suukar ak diwlin ci dëkk bi da jaarul yoon ñu réglé ko hmm. ak yenn immobilier yoo xam ne niñ toppatoo suuf si leerul am na tuuti hmm. balancissement bu ñu jaaralee ci làmb di nga fa fekk loolu am na dossier bu mu ngi war a ñëw mu am ah, ci làmb gi lañ ko dugal. non dama ne blanchissement bu ñu daganalee làmb. Hmm, d'accord. ak autorisation boo xam ne dañ la ko jox pour trois mois nga ci importer ceeb ak diw pendant six mois autorisation bi jeex na yaa ngi indi am na ñooy di waxuma kenn dama ne lii am na ci dëkk bi. Hmm, ok. léegi nag ñii jafewuñ ay dat la ay nangam ak nangam. mais da ngay gis ni bu dooro moo gën a lëcc parce que dooro moom bi mu ñëwee rek démb rek dafa commencé tuddutoo ci président Macky Sall la doore. la tàmbalee ak ñaar ak ñeenti tur yu mu ci dolliwaat. waaw boole na ci benn mhm. ministre. boole na ci trois prénoms ak ñeenti tur. Mhm. moom mu ngi wax mhm. léegi ñeneen ñi nag seen dossier mën na bañ a feeñ ndax buñ négocier jàppalewaat nguur gu fi nekk dañ leen di bàyyi. parce que amuñ problème boo xam ne dafa concerné xaalisu nit nguur gi moo leen ubbiloon buntu ñu mën a am ok mais dooro daf doon jël ci nit ñi xam nga chèque bi nit a ko bind un milliard mhm. deux cent nit moo ko bind mhm. mais mhm. ñëleen nag seeni tappale seeni looxóor amul dara lu mu def nit nguur gi moo ubbi yenn bunt yi pour ñoom euh, cheikh bi euh, information bu ñu ma jox léegi mooy waa ji dafa mel ni dafa xaw a sentir seul foofu mu nekk Euh, taxaw bi daal dese naa demee noonu ci ñu mu doon dimbali ñu doon jàppale ñu doon teral ndax xëy na peut-être am na ab somme boo xamante ne bu ñu ko dajalee ba fay ko rek yëf mën naa sedd ci moom mais dafa xaw sël daal ci jamono ji nga xam ni fa la nekk noonu dafa xaw a sël ci ñu mu doon jàppale ñum doon dimbali ñu doon suturaal ñoo xamante ni tey mënuñu sax indi koppar jàppale ko ci. loolu loolu du Doro rek Sénégal moo mel noonu waxoon naa ko ba génnee kaso. ma ne yéen ñiy tagg dooro tey fexe leen taxaw ko ëllëg ndax kaso gi leen ma gis ñi ma fa fekk mu dugal leen fa dina leen fa fekk. Mhm. ba ma génnee kaso laa ko wax ndax ñun ñu nekk kaso dañuy wax ku ne day wax sa dossier kaso ngay dégg nit na la man maa rey man maa sàcc man maa def nangam su ma interview yi ñu ngi fi léegi nag bu demee nii. Mhm. sénégalais dañ lay daw pour ñetti mbir benn ragal neen. Mhm. ragal neen nga nga dugal leen ci. Mm-hmm. ñoom seen bopp. waaw. ñu ne dañoo arrêté dañoo dañoo jàpp sëñ Bada. Mm-hmm. jàpp nen sëñ Bada. sëñ Bada de <clears throat> ma ne ko Bada de amulul. Euh, ah, police ah non man yëgaguma ko de yëguma ko wax dëgg yëguma bu demee tam mu ngi ñëwaat ndax amulul police ba benn njariñ. ba léegi lañ ko jàppale sànq mi ngi noonu live kon léegi la. ah yëguma ko de. léegi. Mm-hmm. fan laa tolloon. yaa ngi toll woon ci euh, ci ci ci sël gi mu sël daal maanaam ñuy bañ a taxaw ko jamono ji. ngir ñetti mbir mm-hmm. benn. ñëw soutenir la ñu boole leen ci. ñu mm-hmm. bokk ak yow beneen ba wane seen xaritoog yow ñu xalaat ne ñoom ñu ngi def lu bon. benn ba musuñ laa bëgg den la soxla woon mais bëgguñ la. d'accord. di la soxla bu soxlaam jeexee dootoo ko gis. waaye ki bëgg bu méttee nga koy door a gis. Mm-hmm. donc kon ñett yii moo tax. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy génn réew mi di appel di woote. luñ lay mën a dimbalee mooy yëkkati xaalis jox la. wut mm-hmm. avocat jox la mais duñu teew. léegi nag ñi lekkoon xaalis si dooro bi di ko dooro tey dooro suba dooro guddi dooro bëccëg. neen jug nag goqi gor xam nga gor guy goqi mooy lan. jamono bi ma lebalee te mënaluma ko suma bopp jamono boobu nga yëkkati eh, bis bu mhm. mënul ba nga yëkkati suma doole taxaw ku mel ni aadam taxaw na fii saaga ma net ku laal doora mu laal la léegi nag laal neen doora na samp laay fam suba ngir doora bëccëg guddi ngoon loolooy wane fidélité ak loyauté ku mel ni mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñi doon dooro dooro tey seen tuur la pour ñoom ñu génn sàjjal dooro parce que góor rek la mën a doon. important donc cheikh bi dossier bi maa ngi koy maa ngi koy topp lu ma ci am lu ma leer dinaa la ko ci waxal naa naa naa la ko ci wax parce que xam nga soo amee posture yoo am rek da ngay bëgg lépp looy wax mu mu leer la en tout cas daal mbir yi depuis démb la xew depuis aux environs de 10 heures man 11 heures yëg naa ko bu yàgg 11 heures mais dama doon vérifier au niveau de la gendarmerie malheureusement jotu moon kenn pour vérifier l' information déjà maa ngi ci préparé un dossier bu ma war a traité euh, demain ndax prête-nom yooyu ñëpp ñi nga xam ne tudd nañ ci dossier bi yor naa seen tur. muy mhm. quatre personnes yooyu ngay wax euh, jox nañu ma seen tur. li xew tey aussi foofu ci gendarmerie ay éléments ñu ngi foo woon aux alentours wax nañu ma lépp ba ci coow la fa bëggoon am au moins euh, dindi ko de justesse parce que ñi fa nekkoon noonu nga xam ne ay xaritu waa ji leen fexe nañ ba téye kenn ki ba ba keneen ki meram wàcceeku. xeex nag amu fa moom comme ni ñu waxee xeex moom amu fa waaw mais naroon na fa am nag coow naroon na fa am ndax euh, actuellement moom keneen ki moom mer na ba futt lool sax mer na ba futt lool te keneen ki ñëwoon na ba ca buntu ba ngir seet si donc bugguma bugguma tudd tur xam nga rek damay bañ a tooñ. te xam nga yoon ni réew mi rek la woon rek la ak ak ak Clara ko dañoo te tabaski bi day waaj a jot damaa <laughs> léegi leneen li ma ciy tegu moom mooy il faut aussi cheikh bi leerlu ba xam góor ñi monogamie dañu signé wala beneen beneen beneen problème dafa am ci yëf yi. Mhm. waaw il faut il faut ñu vérifier loolu man bo man maa ngi koy vérifier yow it jox naa la aval nga vérifier loolu. non loolu moom vérifier nañ ko bu yàgg dafa signaloon Clara ne ci yow laa yam takk ci tag suuf moo tax rakk yi légalul Clara moo légal. waaw léegi te du man tey loolu man wax naa ko tey sama laay. kon kon yoon bu ci duggee kon yoon bu ci duggee kon bu ndaw si bu ñu ko merloowee ba mu dem ci yoon tamit nañ def très attention de. non su demee su dee jaral na ko ba mu dem ci ba ñu ah. valider takk kii yoon day def liggéeyam hmm. parce que benn jabar leen ko signal moom kenn rek la. waaw ah, kon ku góor ki day am problème kon. bañ day am problème yokk ci bi mu am nii parce que problème am bii salaamaaleykum la rek des na yeneen ak yeneen. yeneen plainte dugg na dégg nga mujjee doon meilleur piment. beneen plainte dugg na. Mhm. dafa dugg wala day war a dugg. waaw na ba pare naa la wax tur bi ci kanam incha allah. waaw allah ci kanam damay dem saal ni sport après maa ngi allah. li ngay toogee foo jëmati Zeyna. <laughs> bàyyi ma sport rek. tay damaa pataa <laughs> te comme dañuy waaj a maa ak waaj a takk. kante sëy bi il faut sa sëy laa bëgg a sa sëy ñu lay seetaan sa gel ci ligne bi laa bëgg a tas comme dañu waaj a takkante damay <laughs> ah cheikh bi waxuma juin bi nga may takk yow it nag ah déedéet mosuma koo wax da nga juum ci cheikh ahmed la peut-être cheikh bada ngay wax euh, cheikh bi waaw <laughs> d'accord wàccal dem